tàmbalee kàddu yi nga xam ni Guy Marius Sagna moom député bi daal na ko yëkkati di wax Pape Amadou Keita dañ ko faat file ci Ndakaaru moom nag way takk der yi ñoo ko daal di faat mu mel ni sax nak mbir moomee dafay nekk rek loo xam ni dafay rek doy waar sax nag lañu ñu mën ci wax ndax ñoo ngi koy nemmeeku bu baax a baax mu mel ni autopsie bi loolu la daal di fësal kon nag njiitu réew mi ak gouvernement wam bile bile yoon nag jàppaat nañ leen ca nag yi nga xam ni moom la ñuy def te teguñu ko fenn nit ñi itam di faatu eh, ci nag nguuram gile loolee war na ko xoolaat bu baax a baax te sax nag bu ñu rekk xoolee sax ba ci biir du mujj fenn nag ku fi faatu moom yaay perte daa mel ni mu mel ni wàllu résistance bi nga xam ni moom lañu taxawee ñun dinañ ko wéyal ba tey rek fi mu nekk nii moom ala accu rekk dem ba jeex du ñu bàyyi dara moom magi du bokk Sonko kay mooy daal di bokk rek te ñu ngi ñaan sax nag justice pour nag kile di papa Seydou Keita ak ñeneen ñi nga xam ne jamono ji ñoo leen jàpp foofee nag te teguñu ko fenn.